Uh... ahlan bikum teg nañu xeer wu njëkk ci statu Sénégal ba ñuy tabax ca jam ñaajo niki démb allah njiiti réew mi Macky sàll ma jiite xew-xew ba nee na stade bi ni mel bu mucc ay bu méngoog jamono bi gën a rafet te sàmm li fi FIFA bëgg moo nara am jam ñaajo te gis nga suma paree Coupe d'Afrique laa bëgg ñu organiser fii Sénégal fii ak ñeenti at la Soleil yéen a kaay ñi ko xamal waa Grand Place ne stade ba nekk Moscou ñu ko wax Spartak moom lañ buddi gaajo maanaam ñooy niroo teg-teg jëwriñ ji dénk wàllu tàggat yaram Matar Ba na suñ stade bi kay bu paree stade de France sax duñu ñu demal fenn maanaam du ñu dàqale waa grand place ne stade bi kay bu rafetut ñu war cee wax ndax li ngeen ci dugal ci ay milliards xapp lakk la de a yaaw seetal téeméer ak juróom fukki milliards moom lañ koy tabaxee juróom fukki junne place a ciy xam am tribune pour VIP président yi am tribune pour presse bi journaliste yi ñooy def en dara du manqué ba tax njiit réew mi Macky Sall na Jeux olympiques de amal fii ay médaille laa bëgg ba tax na ngeen tànn athlètes yi gën a xarañ ngir ñu teewal Sénégal kàddoom yaa ngi ci enquête yéen e kaay laas yéen e kaay ne démb jam ñaajo fa mel ni rek campagne électorale ci la ñu nekkoon xumbaay mbumbaay afar caaxaan-caaxaan yow teg xeer stade bu ñuy tabax te pareegut nga yàq ci ay millions dajala mbooloo bu bari di foo ko tàccoo ko mel ni ah yéen war nañ koo xolaat waay stade yéen e kaay nag ne gayndey Sénégal yi fi mu toll ni ñu bari si ñoom fa ñoo gaañu ña ca des nekkuñ ci forme te a football ak Guinée Sarr nee na moom kenn mësul ko oo ngir mu footballal Sénégal sunu lamb yéen a kaay nañu Papa Sow ak Siteu tey bu ñeenti waxtu jotee ca stade Marius Ndiaye fa la ñuy xamalee seen jàkkaarloo kàddu yi nar a tàng nag xuloo ñàkkante moo fa nar a xam Pape Diouf it ak Ngaaka Blindé danañ fa xamal ay wëy jàkkaarloo mbër ya nay leer laneen lu leer ba yegg ca naan ñi ja mooy ne dialogue politique bi ba léegi juboo amagut diggante ku jégi ak nguur gi jëm ci arrêté Ousmane Ngom bi naka noonu yëraat code électoral bi doxalinu wote yi si du quotidien moo ñu ko xamal yéen kaay bi nag nee na ñàkk juboo gu bëri gi ci ay poñ yu bëri boo moytuwut fa nar a la jal dialogue bi de les écoles yéen a kaay na ko démb moom ñàkkante kàddu yi tàng jir moo dox ci seen diggante 24 heures yéen a kaay na neexut ba neexut waaye Sénégal yaa problème bokku sax jafe-jafe yi bëri na libération ne ma limal leen ci benn yàq xaalis ba am ca ARTP ci jëndam oto ñaari 4x4 157 millions ay naka noon délégation ba ñu dénk liggéeyu jam ñaajo ba ñoomi jënd na ñaari oto 4x4 ci 108 millions l'observateur jox kàddu màgget seen nee na Sénégal daal juróomi milliards moom la ñuy dugal ci defaraat defaraat laa wax de oto yi nguur gi at bu jot diggante pënu bu yàqu sàmburu yee rek yu ñàkk fayda yooyu cinq milliards lañ ciy dugal xam nga ne loolu ay font la ba tax waa FMI yi wax nañoo Macky Sall njiit réew mi nee nañ ko bor bi nga ñu yoral bëri na trop juróom-ñeenti junney milliards moom la Sénégal yore bor ci bitim réew te bor bi warutoon a weesu ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñeent ci ay milliards léegi nag la may nga yokk ko soo fa yeggee nag boo ñu lebatee ñu bañ ndax xatte bor projet Macky Sall yi source a yéen a kaay na ko gis nga Macky fa tas yaakaaru askan wi a yaaw seetal bi muy laaj réew mi li lim digoon sénégalais yi ba tax ñu wóolu ko fal ko bi mu toogee ci réew mi dara ba dara booloo jeex la fi defut ca la lam digoon askan wi jàpp leen benn moo waxoon ne bu faloo mandaam bi fa koy def juróom makki defut ko moo fi waxoon ne su ma faloo sama gouvernement bi du weesu ñaar fukki ministre ak juróom léegi compte leen ñaata la ëpp na ko di dem moo fi digge woon yor réew mi ci anam gu sell Macky defut ko moo fi digge woon ne yoon day tëddee njaaxaanaay ku jàdd yoon mu dal ci sa kaw tey jii ñi ànd ak Macky lu leen neex def njublan xaalis réew mi tappale tooñ te kenn du leen laal ba tey source ay yéen a kaay ne ma yokkal leen ci liggéeykat ya nekkoon ca assurance ca grande muraille verte ñoom fi mu toll ne amatuñ salaire seen liggéey ba fa nar a naax saa yàqu lii nag mooy tolluwaayu Sénégal le quotidien na ko lu jëm ci Macky nommé fal maire bu Ndakaaru Aminata Mbengue Ndiaye moo joxe xalaat bi nit ñaa ngi koy attaqué di dal ci kawam waaye lan moo tax Aminata ba léegi tontuwut fana tekk tekkaaral man li jaaxal les éco mooy wàllu ñu ñoom ji Diack Diouf ba teg leen loxo ba léegi dégguñu ku wax ne jël nañ sama xaalis joxuñ ma visa wala ku leen kalaame ci yoon te benn ambassade sax joxewut firnde yi ni mel kon yëfi teeyut xel ngeen foog lañ foogoon nag moo mujj xam taaliba ba faatu woon ñu ne sëriñ daaraama ko dóor ba mu dee ginnaaw bu ñu defee autopsie docteur ya nee nañ fañ koo dóor ci bopp yuur gi xam gaañu-gaañu looloo ko rey ba tax vox populi ne sëriñ daaraam ba ca cox na yoon teg na ko loxo keneen ku ñu teg loxo mooy Pape Alé Niang fa doon dawal oto takk mbaal gi màndi ba na tatt mujj def accident l'observateur moo ko xamal tiisuma la mbaaw ba tey l'observateur di ñu xamal ne Sénégal fi mu ni li fi seetlu mooy fa bëri nit ñuy jóg di woote na ñoom yonent yàlla lañ aay yéene kaay bi ne li ni mel danger la lu garaaw ci réew mi la waa ma ne waxuma la garaaw ci réew mi waaye ab jullit xam na yoo xam ne waru koo wax lu nit gàtt gàtt xam-xam war naa dégg ñuy wax naan yonent yàlla Muhammad mooy xaatimul anbiyaa i wa imaamul mursalina maanaam ginnaaw bu mu ñëwee beneen yonent dootul ñëwati jeex na tëj na buntu ba waaye xam nga Sénégal moom lu neex waay wax ci diine ji te dara du la ci fekk